tijani sama waay la jambi ñal jaara busu wala man se jaara jurujub léegi yow sëñ Bada comme gis nga bu wax ci ray bi waa ji këram la añee bokkul ci bi nabu lay bokkul ci ray bi léegi eggaleel ma jël photo yi ak information yi transfert ko ci téléphone boobu. waa dama ne la ki ray nga ne que ñi ray ma ne la benn démb Modou Lo moom moo avoué. ñi ci des kay xanaa ay complice peut-être présumé. waaw léegi ci leeral Modou Lo moom bokku information la yow xanaa xamul réew mi. da nga bëgg wax presse bi ñoo fen ñi ko mbooleem ko ko wax day duul. Ah, ma doon mboolem boo ko wax ne ci la bokk day toj cottu ndeem man nii ma la wax ci liste bi ñii ñoo rey ñii nañ jàpp li ñuy wax yëpp ay kii moo retiré wéef bi nangam dañuy duul dinaa la wax kan moo retiré ak ku retiré may maye gale rek man kay li may wax ragal moo ko maa ngi dëkk Sénégal dëkk Parcelles Assainies unité 14 fii. bi kay li may wax kay ragal moo ko. dama police jël si. non non information bi rawuma ne suivre naa cas bi tey mais ba tey moo ko wax ba ne ko day dul day coccot ndeyam bu dul def ma def diffamation Seneweb Seneweb bu ko waxee day duul sëñ bi nag bu ko bu waxee loolu day coccot ndeyam ay professionnel lañ de waaw yabuma yabuma sénégalais yi ku wax ne loolu am na day dul day coccot ndeyam fii nañ bëgg ak bës man kay maanaam di ba maa xool doon keex dëgg rek laay wax ci réew mi c'est que suuf bi cas yi si boppam moo bëri version moo tax yow boo. waaw version yi du jaxasoo à la fin. waaw yow da de di man de sëñ Bada lu ma concentré wu ci moom sànq mi ngi wax lu dalal sama xel vraiment moo tax man depuis sànq maa ngi ci laay di ko déglu. yow démb xam nga affaire yi jaxasoo na mais. Seneweb ils ont dit de source sûre xam nga au delà de li am tey il faut noter que lu gaa Modou Lo ñoom ñoo ko génne ba ñoom Bada sax commencé di ko tudd dëgg la le gars ki sant jaw xam nga nan Modou kenn dégg ko woon mais il a fallu cité wax ci pour ñu commencé di ko tudd ba tudd ay nijaayam ay frère ak yooyu noonu. Bada Bada sëñ parce que version moo bëri Suzanne moo tax doo xam sax looy looy. à la fin da ngay jaxasoo. waa affaire yi moom jaxasoo. xam nga Suzanne mbir dafa am loo xam te ni te lu ko tudd ci doom ndax xam nga ay ay góor jigéen ak hmm. nekk ay points yoo xam ne ci réew mi ko tuddee décortiquer ko mën naa taal réew mi te damaa bu ma ci suuf. Hmm. dinaa leer ba mu leer bul fàttali ne waxoon naa ko sànq xaw na yàgg tuuti. am benn waaye bu ñu ci armeer dem ba yàgg gaa yi xam ne kii góor jigéen la dañoo dem sulli waat dem sulli ay yax na lu teg te bëri naa mën naa def mën naa mën mën naa wax lu nekk waaye am na xeet wax yoo xamante ne nag moom su ma ko xasee xam dama ciy tëb sama tànk teg ko ci ci kaw comprendre mais wérte wér information yi mën a leen ko jàllale nit am na ci loo xam ne nag moom a wax carrément du ma ko def. mais dafa compliqué nga ci ko luus moo tax ma ne la jaxase na nañu. voilà léegi nag noonu la demee sëñ Bada. ñëpp seen photo da ko am. maa la wax loolu na. est que xam nga ne booy boobu noonu tey génn na di wax ki ko jiiñoon kiñ ne mooy Mamadou Lamine étudiant bi. waa doo juum taf ci photo jàmbur sëñ Bada. man kay ma la wax léegi rek. ah. damaa saa yi. déglu na ci yàlla baax na. non man Sénégal laa nekk man lépp lu may def day leer parce que man sama adresse nëbbatul comprendre man du ma wax du joxe fausse information du ma doomu aadama man lu ma wax rek day leer ku ma tafit yaa def ku taf defuloo. man noonu laay doxee parce que Sénégal laa nekk joxe naa sama adresse ñun ñëpp ak may seetaan moo tax lu may wax loolu day leer bokk maag bokk maag borom fausse compte yi nga xamante ni dañuy nekk seen ginnaaw écran di wax ay kii ak buzz déedéet man lu may wax day leer parce que man maa koy assumé. police bu ñu woo sëñ Bada est-ce que ñu profité ci histoire bi pour tàkkaat bari na. Mhm. dafa am ñu fayoon di profité ci cas bi. voilà merci beaucoup. loolu la cas bi demee tàkkaat. voilà voilà merci beaucoup loolu la cas bi demee voilà. loolu moom dëgg la ñi ci profité bari na kenn déggatu leen woon. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna yi a wax rek léegi. ngeen may ma maa ngi bu baax Fall. waaw ku wax. maa ngi bu baax Fall bàyyi ma ko ma ne ko maa ngi lay nuyu bu baax Fall. waaw soxna si dama bëggoon wax de damay wàcc léegi maa la fi ay ci

d'accord waaw sëñ Bata. Ah, waaw. waaw wuy ma rek déglu ma sëñ Bata ma ne. xam nga xam nga problème bi lan moo ma si jaaxal. waaw. mooy que maanaam locataires yi ne ci biir kër gi xam nga dañ leen dëkkaloon micro ñuy wax. waaw. femme bi doon kër gi mu ne dégg na ay bruit ci matin bi. dégg na ay bruit. nee na dégg na ay bruit. ci saal bi maanaam appartement Aziz ci kaw maanaam saal bi dégg na fa ay bruit. mais matin bi la. léegi mu ne déggaat na encore ay bruit ci ngoon gi te yow da ne vingt 22h la affaire yi tàmbali. waaw donc affaire yi jaxasoo na. man maa ngi déglu mais version yi dafa bëri tellement que dama jaxasoo. bàcc Sëriñ Tuuba dafa bëri déglu ma wax la. ba pare euh, sëñ Bada. Mm-hmm. ñi nekk Europe nan la ñu mën a joxee information ñi nekk Sénégal. boo ma jaaxal. man dama xalaat ñi nekk Sénégal ñoo a mën a am information. man ma dem ci dëj ba ànd ak Papa Aziz. dem ba gis ma wax ak ñoom nuyu leen ñu nuyu ma. ma sol sama dàll dem ba dikk dem taxaw. Mhm. ah def li may def yëpp. dañuy mhm. fontu waay. man loolu daal moo ma jaaxal ma ne xaaral ma yéeg. pour la pour parce que ñi ñi problème boo xam ne 22h la. nan la utee ak 8h du matin ak xawma lan 16h parce que version yi dafa bëri. am na mhm. waay bu ne samedi tamit dégg na benn yuuxu bu fort donc problème yi daal jaxasoo na. loolu laa ci doon sànni rek maa ngi leeralal jërëjëf maa ngi déglu ci suuf waaw léegi samedi bi war a leeralal foofu waaw xam nga samedi bi Aziz Dabala loolu xeex mhm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko muy Serigne Sarr alliance ndës la doon xeexal keroog samedi bi nu xeexee nga ñu àtte leen Nabou Leye moo ko jël dugal ko ci otoom loolu moo waral keroog enquêteurs yi woo Nabou Leye parce que nabu lay xam ne ni coow li demee mais Nabou Leye fekkewut fu ñuy reyee Aziz Nabou Leye ni mu mel ak muy frère am de sang di papam di yaayam di lépp doom ñaar comme bu roog soow xam nga ne Nabou Leye du fekk mukk fuy Aziz fuy Aziz di tumuraanke wala loolu mënta nekk déedéet bi nu xeexee ba pare bi mu ko da ko yóbbu hôpital dem faji ko bi mu ko fajee ba mu wér mu indi ko kon ñàkkut ne ñàkkut ne ci samedi bi affaire dafa metti Aziz yuuxu waa ji dégg loolu wa ilaa femme bi yuuxu wala kenn gis affaire bi yuuxu mais xeexewuñ ci kër gi moom samedi gars yi ñëwuñ ci kër gi ci cant bi nan doon xeexe yëmbal maanaam safar bi nan doon xeexee foofu gars yi buub leen indi leen ci dim eh, maanaam après ci lënd bi fekk gaa yi topp na leen daal di ñëw kër Aziz Dabala bi ñuy ñëw foofu nga fekk ku ñu fa nabu moom lañ fa fekk ñoom moom lañ fa fekk dinaa leen wax nga ci ñëw bi da may may ma def li may def àggale ko wax leen naka la ñëwee ak naka la coow li tàmbalee foofu ak ni mu démarré ba egsi fii nii ngeen ci jotee loolu dinaa ci ñëw. d' ngeen def li ngeen def. maraîchage bi ray bi dimanche la wala. ndax xeex boobu nga wax samedi ray bi ray la diggante maanaam ci ni ko enquêteurs yi waxee vingt deux heures ba cinq heures du matin. ba léegi xeex bi samedi nag lum lum si wuti affaire dafa demoon cant safar. waaw. safar bu ñu ko évité woon safar. Mhm. mu demoon fa doon xeex ak gaa règlement de compte. waaw loolu beneen koñ la koñu jàmbur la koñ bu nu demoon di ko mu gars ko di ko xeex ak moom fan yi fu booy bi attaqué rek. Hmm. fekk mu fële attaqué waaw. noonu la demee xam tey jii. su fekkoon ne bu fekkoon ne ma fekkee bokk doxaanu ma ndeyam day ñëw sama kër parce que day ñam mu neex. mu neex mu ne xaaral ma dolli mais bi ma kattee ndeyam ba àdduna génn ma ne du ma bàyyi gars yi ne gars bàyyil ma ne du ma bàyyi wiiri ko koj ko mu ne kii dof la. ci la ma bàyyee comprendre nga. suñ pare mooy kan ndaw si. ah. ma mooy kan ndaw si. ba ndaw. ba ndaw. déet dama jàpp. non du ndaw a laaj ma dégg quoi. parce que man boo laaju damay fàtte maanaam damay bëgg a wax dara mais léeg na dama koy fàtte boo waxul rek damay fàtte. waxal ma dégg laaj ma li may laaj. non laaj ba xam ndaw si. comme dama doon laajte nga defaral sa laaj bu wóor na yàlla xaritu wax ba xam mooy ki nga doon xeexal si ak Ouzin Keita mooy bi nekk bi ngeen nekkee defal droit au man amul problème laajal li nga bëgg a laaj ma tontu la ci loolu garab may naa la loolu amul non non suñu bada xaw ma ko de ndaw si xaw ma ko mais dama gisoon seen ay vidéo noonu xaritu Ouzin ñi may xeexal diw man ñi may xeexal bëri na man pelañaa la ay histoire ak problème rek jaay kii jaay diw bon boo boo li ngay wax moom man nee naa la loo ma loo ma laaj ma wax la ko kay loolu kay yemb na topp ma la ci dara leeral ma la ci dara kay xanaa doo dégg su ma la doon topp ci dara kay dama lay guddi wala mu acca noo bëgg a laaj laajal nga xam da ngay kii. non non ki nga amaloon problème fan yii loolu loolu la bëgg wax may mën na bi rek kay moo gën. ci nga amaloon problème fan yii passé. waaw loolu kay waaw laaj ko dara nekkul ci waaw boo ma parce que tamit man maa def. tey ku dee ci marché bi tey yàlla yaa tàgge sama ah. ba day am ay déglu. ndax yu gisal yaara yaara suuli laay xam na ne yaay le marabout du peuple. la parce que xam nga lu tax ma wax la ko macha allah yal na la yàlla fal cat. ko information baax waxuma na pour nga am vue waxuma pour nga am ay lii waxuma pour nga am ay la mais xel mu dal ku ko bëgg na suivre sa live parce que li ngay wax wax nga ko euh, li ngay wax lu concret la lu leer lu déggable la waaye te ay nombre de personne naan leen jigéen euh, góor a góor fëgg jigéen a fëgg ba tax Aziz ubbi ah pat di yàq der am na loo xam ne rafetul rafetul lii nga wax nag moom ku bëgg sa bopp leer ku bëgg am xel mu dal na la déglu Aziz daal nañ ko ñaanal suñ boroom xare ko àjjana mu mottalee ndaw idaani sama waay da jàmmiñal jaara busub wala mañ sa bi jaara